allahu akbar allahu akbar allahu akbar allah asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah seen Fatiha maam yéen ñii laay waxtaanal ndax ay jullit bu ñu nekkee dañuy ñaaxante maam ci lu jëm ci wàllu lislaam gi ab ab jullit da ngay am fit maam ci wàllu lislaam gi maam bu jëree joxe sa bakkan sax nga joxe ko nga joxe sa bakkan bi ndax gis nga keroog xare badar maam yéeféer yi junni woon jullit yi ñetti téeméer te jullit yi ñoo leen mu mën moom ab jullit daal da ngay am fit jaayanteeg sa bakkan bii bañ cee bëgg dara. ngir maam loo xamante ci nii lu jëm ci wàllu yàlla la. waaw. est-ce que est-ce que gis nga man nii ngay gis maa bëggoon fekk bisu Uhud wala Badar bu boobaa ngeen xam ni bu dee bakkan rek la du fi des. ñu ñaan nangu leen Mamadou Kébé dama ne ngeen toog toog leen da ngeen di ma wuuri si do bekk toog leen rek del leen dama ne eh do bi ñu def ni